ak élection yoo xam ni ñu ngi koy waaj ah ñëpp ci xaw a tiit ndax ah, wax ji am ci diggante ñi nga xam ne ñoo ne ci nguur gi ak ñi nga xam ñoo ne ci kujje gi te it taay li nga xam ne tamit moo tax eh, ñu gën a tiit ah dégg nañ kenn ci kilifa yi moom pare na bàmmeelam ba pare Touba waaw nag loolu buñ ko déggee ne maa ngi ñëw dañ ci tiit loolu tax na ba eh, depuis ci temps yi ñu ngi jóg di dox eh, bërkaati démb dem nañ ba gis ki nga xam ne mooy président de la république ak premier ministre ak ñu toogal yëpp ñu leen yéen yéen a yor nguur gi lépp lu ngeen xam ne mën ngeen ko def te du yëfit na tey it day tax ñun ñi dal def ñu ngeen def ko waaw président nañu moom mun nañu konte ci moom ba nga xam ne lépp lu yëfit na du ko def ñu ko doon rafet lu lool biñ fa jógee nag fii lañ jublu si Touba waaw parce am yaakaar lool am yaakaar ci kàddu gi am yaakaar ci ñaan yi moo taxoon ñu ñëw ba fi tey ah ñu ne day kàddu bu fekkee ne jóge na tubaa jóge ci sëriñ tubaa ci boppam yaakaar naa ne senegal yëpp muy kilifa yi muy taalibe yi ñëpp dañ ko dégg loolu moo taxoon ñu ñëw agsi ba fii di ñaan sëñ Touba di la ñaan encore di la fidelu suñu kóllëre am yaakaar lool euh, pour sa kàddu jib ñëpp dal waaw ñëpp dal ñu euh, dem ci ay élection yoo xam ne day nekk si jàmm euh, ñu génn si ci jàmm parce que loolu tamit moom moo mën a jik Sénégal waaw jàmm rek parce que fi mu toll nii dëgg dëgg fitna xajul ci réew mi ak la ñuy dégg pétrole yeeg ak euh, yeneen euh, yu ñuy dégg yu am ci yeneen réew yi fitna yi euh, bañ mu agsi fii moo tax on dëgg ñu am yaakaar bu rakaar lool waaw agsi waaw lépp itam jëm nag ci jàmm dégg na ni ko wax ni ko wax itam ginnaaw jaar ngeen ci président bi moom tontu leen loolu loolu xel man na ci euh, gën daal waaye yéen li ngeen di dox day loo xam ne lu lu am solo la ndax euh, euh, yonent bi dafa bokk mboolem li ñuy def ci lu dul farata mboolem xeeti naafila yi ñuy def ak yu baax yi ñuy def defarug moo ci jiitu defarug bokk nag yaakaar naa defar bokki réew yaakaar naa moo ko gën yaatu te loolu loolu loolu loolu ci xew mboolem li ñuy def ci lu baax lépp tànki defar bokk waxuma la tànki defaru réew defaru réew bokki loolu moo jiitu moo jiitu ci lu baax li ñuy def lépp lu ci dul farata nga xam ne dañ suñu moo xam moo xam nam na ko tegee la xam ne moom ñu ngi ñu ciy déglu ñu ngi ñu xool ñu ci ñu di ci kem kattan ngi sàkkoo ko ngërëmam loolu defar defar defar bokk dara ku ko ca jiituwut da ca dolli ko itam senegal moom eh, ci googu wàll am nañ ca bind boo xam ne duutu faa far mukk muy sëriñ bi ku ne xam ne sëriñ bi sëriñ bi ku nekk gis na ni nga xam ne ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu demee mu jógee ba ni mu ak dellu see fii ku nekk xam na ne lépp lépp lépp jàmm la bu ko neexoon muy ay wuri ay wu mas a am rek bu ko neexoon ay ay ay juddoo fi boo xam ne benn ay du ko mas a ëpp waaye bi mu jógee ba ni mu ñibbisee fii ci boroom rek la nekk mus koo jenn fitna lépp moo ko yoral boppam ci biir ak ci biti kooku doon exemple ci adduna bépp waxuma laa Sénégal Serigne Touba bu fekkoonte ne xam yomb woon na noonu day jar ñu ñu bind ko bind bind bind ko bind bind bind ba xam Serigne mooy kan day jar bind ko ba xam dundinam dund ko dundinam mooy lan loolu bu fekkoonte ne euh, adduna bépp xamoon nañ ko jàmm am fépp loolu rek laa ci loolu laa la ci loolu daal mooy li ma ci xam bu wér boo xam ne xam-xamu yaqin la boo xam ne xam-xamu dëgg dëgg dëgg dëgg xam-xam la loolu moo nekk kon réew mën a mën naa jaaxle ba mu war a des Sénégal mm-hmm. bi amee Sëriñ Tuubaa loolu mooy dëgg te lu ñu ko gëstu gëstu gëstu dañ koy gën a gis mu gën a doon dëgg rek <laughs> noonu rek la <laughs> kon nag yéen nga xam ne kon yéen ñu leen di sant yéen ñi nga xam ne da ngeen jóg seddoo loolu def ko mu seenum liggéey yéen am ngeen dam am ngeen dam ba noppi waaye nag yàlla suñu borom mii dafa ko dindi ñoo ngi ñaan bu baax ñun ci barkib Sëriñ Tuubaa yàlla sax def jàmm fii ci Sénégal saxal ko te def ko ci réew yëpp ndax ñëpp jàmm yàlla nañu rawatina lislaam loolu rek mooy suñu ñaan waaw te ci barkeb sëñ bi mi xam ne liggéey na ci jàmm liggéey boo xam ne kenn defu ko ci barkeb la ñaan